la ilaha illallah la ilaha illallah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 nekk turam ak santam di masu ceenu sëriñ bi di wax bisimilah di wax ni waa kër gi sëriñ bi dafa ñëwoon rek pour saafoonteeg yéen ànd ak yéen li nga xamante ni moom moo ñu dal ci at mi mooy suñu mag mu baax mi nga xam ne moo fi wàññeekoo moo warloon mu ne bu duggee Fuuta bu duggee Seedu tamit dafay jaar ci kër gi ñaalalante ak yéen yàlla oyofal suuf ci koom yokku leeram ci barke Seexu Tijaani bàyyi ki nga xam ne moo fi wàññeekoo tamit. wali yàlla la borom xam-xam la borom wilaaya la ku ñu doon dimbale ci yàlla la tey su ma yeboo ne ñun ndaw ñu ñu ñoo ñàkk parce que fii lépp lu fi jóg ci loo xam ne lu programme bu jëm ci yàlla la moom mooy ki ñuy dooleel ci alalam ci xalaatam ci léppam tey demoon na benn instant dëkk bi amuñu woon kenn ku dul moom fu ñu daan defee réunion sax duñ koy am problème mais ci mbaaram mii la ñu koy defee mu nekk koo xam ne am na 70 euh, ans wala lu ko ëpp mais dafa ànd ak ñun ci loolu mu nekk mag moo xamante ni dëgg-dëgg ku bëgg yàlla nga xam ne waa Médina Baye yëpp ñu koy ndamoo bokk na ci li gën a yéeme mooy keroog bi mu wàññee ko Pape Sidi moo fi ñëw ànd ak moom gungee ko ba ca place am ba defal ko ñaan te delluwaat te loolu dëgg-dëgg liggéey ci yàlla moo ko may bu doon liggéeyu ci yàlla bu bëgg am loolu du ko du ko am kon loolu moom ma waraloon sëriñ bi jaar fii di ñaalante ak yéen kon ñii ñooy ay doomam ku fi mel ni Seydi Abdou Sine ak Sidi Mouhamed ñoom ñoo fi nekk tey ñeneen ñi nag xëy na ñu ngi extérieur di ñoo tukki yaa ngi dégg ay soxnaam tamit ñu ngi si biir waaye lii moo doon tànku sëriñ bi pour mu ñaanal leen li nga xamante mooy li nga xam ne loolu lañ bokk Baye Docteur damay wax ma ne doom rek ñoo ñàkk mais ñun ndaw yi seedu ñoo ko ñàkk ñun ndaw yi seedu ko ñàkk Baye Samb mii ku ko bëggoon la ku ko jigee woon la ku ko daan dimbali ci lépp la fekk naa ay maintes fois yoo xamante ni da koy woolu sax toog di waxtaan ak moom di ko conseillé di ko wax fi muy teg tànkam am na daayira bu ñu mu doon def fii ci marché bi ñu ne bu ñu fi defati daayira keroog bi dafa ñëw woo ñëw mu toog ak ñun lu ëpp 30 minutes di ñu wax ni ñu jëflante ak mag ñi naka la ñuy def ba suñ mbir dem am na ñoo xamante ni maanaam wax da leen di tardel mu wax ci lu rafet loo xamante ni dëgg-dëgg duñ ko fàtte ba pencam yàlla kon kilifa dem na borom wilaaya dem na borom xam-xam dem na ku ñu daan téere di dimbale xam naa dañuy jox sëriñ bi rek bu ko defee balay gudd mu ko defee moom itam mu def ñaam am lu mu dénk njaboot gi ñu yegg ci kër gi alhamdulilah ñu wax jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ñu ngi leen di jaale li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp. maaleykum salaam. yéen jaale Baye docteur Sine mi nga xam ne kenn la woon ci xulafaawu Mawlana Cheikh Ibrahima nekkoon ci dëkk bi demoon na ba. weesu muqaddam muqaddam dafay am xalifa dafay am moom nag demoon na ba nekk ci xulafaa yi amul kenn ci pays bi koo xam ne euh, xamoo ko ndax liggéem bu rafet ndax taxawaayam ci taalibe Baay taxawaay bu rafet jëflanteem bu rafet bi nga xam ne mu ngi ko doon jëflanteek jaamu yàlla yi ku mën a doon euh, man ñëw naa fi ñaari yoon bu njëkk bi maa ngi fi àndoon ak doomu Baay amul Diop mu teral ñu te nga yëkkati hadiya ju bari jox ma te jamono jooju man la waroon ndax moom mag la kilifa la te loolu la ñu bàyyi jàngal waaye moom gisul loolu mu ngi doon jàngale rek sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku gëm yàlla gëm ba bésu penc boo amee gan nanga ko teral rawatina gan boo xam ne gan ak yàlla la bu jóge ko ci yàlla dégg nga mu jaaleel ñu góor gi ñaanal ñu yàlla góor gi itam yaa ngi dégg ndax euh, xëy na seen ñaan moo gën a jotale ñun suñu bos dégg nga loolu moo taxoon ñu ànd ak moom di ko jaale waa kër gi yëpp di ñaan yàlla itam yàlla na fi gëj njabootam bi mu fi bàyyi yàlla na yàlla barkeel leen dégg nga yàlla na yàlla euh, euh, desal barkeem itam ci ñoom dégg nga yàlla kàttanal leen wërsëgal leen ci barkeentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaara salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla ndax mu yoon ñu ci lim ñu teg di sant yàlla ndax mu yoon ñu ci lim ñu teg tey wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun yàlla lañ ñeexal mu ñun yàlla leen ñeexal yàlla la ñuy dellu ci yàlla la ñuy dellu bis boobu dal docteur Sine mu bis boobu dal docteur Sine mu dem mu ne foofu mu dem. ñun ñi amut kenn ku bàyyi xel ku bàyyiwut ku bàyyi xel ne doo sa bés ñun ñi amut kenn ci ñun ku bàyyiwut xel ne sa bés du dul ne rek mu ngi ñëw. gannaaw dund bu nekk dee mu ne gannaaw dund bu nekk rek dee moo ci topp. te nga xam ne dee mooy dëgg moom du dëgg. ne dee mooy dëgg waaye dund moom nekkul dëgg. gannaaw ñun ci dee lañ jógee te ci la ñuy dellu. gannaaw ñun ci dee leen jógee itam ci la ñuy dellu. mu ne kon kenn ku nekk ci ñun war na ko waajal. li ma xam ci mbiram. mu ne kooku li ma xam ci mbiram. moom waajaloon na deyam bu yàgg yàgg. ndax mu ngi doon jëflante ak nit ñi jëf ju rafet. jëf jëflante na ak borom moom itam lim ko santoon muy jëf ju rafet. mu ne nit dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee ko dénk ma. yonent bi nee ko jëfal jëf ju rafet. bu dellu ne yonent bi dénk ma yonent dellu waxaat ko ne jëfal jëf ju rafet ba ñetti yoon bu ma xamoon jëf ju rafet kon ma jëf ko mu ne yonent bi man bu ma xamoon jëf ju rafet kon ma jëm ma jëf ko mu ne ko sa jëf ju rafet mooy sa dëkkandoo yi bu ñu waxee ne yow sa jëf ju rafet na rek mooy sa jëf ju rafet na mu ne te docteur Sine foo ko tudd nit ñi dañ lay wax ne ku baax a ngi noonu jullit a ngi noonu taalibe Seex Tijaani ngi noonu taalibe baay bu dëggoo ngi noonu mu ne loolu ak rafetal la loolu moom ci moom a jógee Kaolack mooy ñëw seet bala maa mu ne loolu moo ma jotale jotale ma jógee ko Kaolack ñëw ne bala maa dugg seedoo dinaa ñëw fii ànd ak yow ñi yéen ñu ñëw fii jaale ko ñaanal ko yàlla waaye ñëw fii nag pour ngeen am mu ne waaye ñëwuma fii nag pour ngeen am ci man tiit. bul yaakaar ne dama koo ñaanal si kër yàlla bàyyi ko. mu ne bul yaakaar itam ne dama koo ñaanal si pour yàlla bàyyi ko. kooku yàlla jàppat ko ba di ko bàyyi. mu ne kooku yàlla jàppat ko ba di ko bàyyi. mu ne taalibe Seex Tijaan la. mu ne doy na rek ñu ne taalibe Seex Tijaan la. mu ne Seex Tijaan moom moo wax ne taalibeem kenn du ko visite kenn du ko laaj dara. mu ne kon buñ ñëwee fii. waar yi ñu fi war a waar suñ bopp lañ war a waar. waar yi ñu fi war a waar suñ bopp lañ war a waar. mu ne nañu xam ne aduna kaso la. ñun ak moom lañ boole woon tëj fii. ñun ak moom lañ boole woon tëj fii. moo am na grâce. moom am na garage ñibbi na ci péyib yàlla ba lan la yóbbuwaale jëfam ju rafet jullim yu mat wirdum yu mat kooram yu mat asakaam yu mat laayante biiram ak mbokki jullit ju rafet mu ne loolu dafay soppeeku jëmm ju rafet moo koy wettali ci bàmmelam ba ilaa yawmi yubhasuuna di ko waxtaanal wax ju neex. leeralal bàmmeelam. leeralal bàmmeelam. ñu yokkal ko bàmmeel bi yaatalal ko ko. ubbil ko palanteer bu bàyyeekoo ci àjjana firdawsi. ay xeewal di fa bàyyeekoo di ko fekk ci bàmmeelam. ay xeewal di fa bàyyeekoo di ko fekk ci bàmmeelam bi. loolu nag lay la. mu ne loolu nag la. ñaal xaam yi. ñaal xaam yi. waaye xaasi moom duñ leen wax loolu. ñoom duñ leen wax loolu. xaasi xam nañ ne. mu ne xaasi xam nañ ne. soo yàlla soo paree rek yàlla pare na. su ma amaatoo fa aqbarahu. su ma amaatoo fa aqbarahu. moo ne moo lay wan ne nit ku dee rek ay yëfam jeex na. ba nga paree rek la yàlla pare ci yow. ba nga paree la yàlla pare ci yow. lay sa jëf ak lay sa mbir. mu ne lay sa jëf ak sa mbir. keroog nga ciy jot. nga ciy jot. su baaxee baax na. su baaxee baax na. su yàqoo itam yàqu na. képp ku taxaw ci kanam yàlla. mu ne ak képp ku taxaw ci kanam yàlla. ñu beese say mbir. say julli manqué. te lépp dafay manqué. képp ku taxaw ci képp ku taxaw ci kanam yàlla. ñu seet sa julli lépp mat. seet sa julli lépp mat. kooku na la ne kooka léppam mat na. kooku na la wóor ne kooka léppam mat na. yàlla tàgg na ñi nga xam ne an salaatihim daa'imuun la. mu ne yàlla tàgg na ñi nga xam ne wala sinon an salaatihim daa'imuun. mu ne ñooñu. waa kër Baay lañ ko tuddee. seen lekk julli la. seen lekk julli la. seen naan julli la. seen liggéey julli la. seen nelaw julli la. seen julli itam julli la. seen julli amul dagg mu ne ñooñu seen julli julli gu amul salmal ci leen dëkk. mu ne kon. ñun am nañ ci moom njort lu rafet a rafet. mu ne liñ bëgg. mooy yal nañ ko roy ci melokaanam. mooy yal nañ ko roy ci melokaanam amiin yaa rabbi. lim fi liggéey itam. barke bi yal na tasaaroo ba nekk meññet ci kaw suuf. ñëpp di ko jëriñoo. mu ne ay doomam itam war a xoolee ci moom. war a ci moom. ñaan yàlla am lu mel ni ñaan yàlla am lu mel ni lim am mbaa ñu am lu gën lim am mu ne buñ góorgóorloo yàlla moom lépp lum la may lépp lum la may lu tuuti la ci lim denc buy xeewal buy xeewal lim denc moo gën a bëri buy nattu itam lim denc moo gën a bëri mu ne waaye su la nattoo nga muñ ko muñ gu rafet mu xeewalal la lu ëpp lam la nattoo woon mu ne kon yal na yàlla may ñu xolob muñ ko te ak xam ne am ñun amuñ ci moom benn xolob tiit suñ jort rafet na lool ci moom mu ne kenn ku nekk ci ñun rek ko xoolee bëtëb yërmande yàlla mën na koo garanté kenn ci suñu bët yooyu lu waral loolu mbokk gi ñu bokk ak moom mbokk gi ñu bokk ak moom du deret du askan waaye yàlla moo ñu boole mu ne tanak qiyaam. yowmal qiyaam. dana am ñoo xam ne. dana am ñoo xam ne. danañ jege yàlla. danañ jege yàlla. xaritoo ak moom. xaritoo ak moom. duggulante ak moom. duggulante ak moom. yàlla taf leen ci boppam. yàlla taf leen ci boppam. ba suhadaa yi ak sahaaba yi ñee leen. ba suhadaa yi ak sahaaba yi ñee leen. mu ne loolu yonent bi moom moo ko wax de. biñ ko laajee yonent bi. biñ ko laajee yonent bi. mu ne mooy ñi nga xam ne dañoo bëggante rek te yàlla tax. ñun ñii. li ëpp ci ñun. bokkuñu askan. bokkuñu askan. bokkuñu sax fu ñu juddoo. bokkuñu cosaan. waaye bin dajee ci baay. kenn ku nekk boo xoolee sa morom. kenn ku nekk boo xoolee sa morom. sa morom sa bopp nga gis sa morom. bëggante googu nag. bëggante googu nag. moom la bàyyi def ci xol yi. looloo waral ma ne kenn ku nekk bu ko xoolee benn bët rek mën na ko garanti yàlla mën na ko garanti mu ne looloo waral ma ne kenn ku nekk ci ñun bu ko xoolee bët boobu rek yàlla mën na koo garanti ci bët boobu ci ñun. mu ne liñ bëgg daal mooy docteur Sine. yàlla na yàlla yërëm ko yàlla bu mu ko laaj dara yàlla buñ ko topp dara yàlla na ko yàlla may mbàcc lépp yàlla na bokk ak Seex Ahmad Tijaani Barsaxam yàlla na dëkk ak Seex Ibrahim yal na dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yal nañ bokk ci ñiy kerloo ëllëg ci ron aras. yal na bokk ci ñiy kerloo ëllëg ron aras. ñi fi bàyyi. ñi fi bàyyi itam. muy doomi deret yi. muy doomi deretam yi. ak doomi ruux yi. ak doomi ruux yi. ak xarit ci deret yi. ak xarit ci deret yi. ak xarit ruux yi. ak xarit ruux yi. yal na yàlla wàccee ci ñoom tawfiix. te xool leen bëtëb yërmande. te may leen jàmm. may ñu wér ak fanu gudd. saxal ci suñu xol yi bëgg yàlla ak jàng saxal ci suñ xol yi bëgg yàlla a topp yalla mu ne doom yi yal na leen yàlla barkeel amiin yaa rabbi ba wasal wax seen barke baay ci ñoom yal na yàlla may leen gudd fan yokk seen wërsëg ñi fi nekk itam ak ñi fi nekkul mu ne kër gi yal na ko yàlla yëkkati dañuy wax ne raaxeen lil jinaan mu ne bañ bokk kër gi nga xam kër yi nga xam ne dañuy wax raaxeen lil jinaan bu ëllëgee nga xam ne bu ëllëgee samp ci biir aljanna dañ koy samp ci biir aljanna mu nekk fa mu nekk fa miise ñu ne kër gii ñu ne kër gii góor yàlla yu bëri fii lañ leen tëggee góor yàlla yu bëri fii lañ leen tëggee ñu di comme ni ñuy ziara suñu xabru yi yàlla ko ci yàlla boole amiin yaa rabbi lim fi bàyyi yëpp yàlla ko yàlla barkeel jigéen ñi fi bàyyi jigéen ñi fi bàyyi yàlla na yàlla xool leen bëtu yërmande ak seen i doom yàlla na leen yàlla wuutal ki gën ki leen téye woon te kooku mooy yàlla kooku mooy yonent kooku mooy Cheikh Tidiane kooku mooy Mawlana Ibrahim ñooñu yàlla nañ leen jël def leen ñu nekk seen njabootu bopp mu ne fii nag bii daje yàlla na fi gëj du jaas moom waaye yàlla na fi gëj bu ñu gisee ati. yàlla nekk ngénte. yàlla nekk ngénte. wala ceet. wala ceet. wala daal xewu jàmm ak salaam. wala daal xewu jàmm ak salaam. boo xam ne dañuy mën a daje. boo xam ne dañuy mën a daje. di foo akaree. di foo akaree. kenn du kenn du am tiitaange. kenn du am tiitaange. kenn du am njàqare. kenn du am du xalaat looy naxari. kenn du xalaat looy naxari. yàlla yàlla wàccee fi jàmm. damay ñu njëggal. ñu ngi leen koy jaale itam di ko jaale suñu bopp yàlla na fi gëj yàlla na yàlla barkeel leen bi jaay rasulillahi sallallahu